membre coalition Diomaye bi yëpp nag dafa di bërëb bu solo ci Dakar c'est la deuxième commune en nombre d'électeurs kon nag Grand waa Grand Yoff nuyu naa leen bu li ci des mooy jëli carte mooy jëli carte benn carte bu mu des dans les centres de distribution il faudra aller les chercher Moustapha Diémé maa ngi lay toute la coalition bu ko defee le 24 mars sama jarbaan Pape Ngagne Demba Touré ànd ak ñun fête la victoire incha jërë ngeen jëf xam ngeen ne Grand nag yàlla dafa dogal ñun ñoo ko moom suñu fief la bu ci soxna Mimi Touré mi nga xam ne daf fi am base bu dëgër doole kuse mooy Grand moom mokk na rumba ni ma ko waxee woon te Parcelles Assainies dafa am candidat bu fa nekk fa la dem génne ko parcelle ne ko dafa am borom ndax mënuloo gagné bureau de mënuloo gagné centre de mënuloo gagné commune ba pare bëgg a laaj palais waaye xanaa kii dafa katakay yi way waaye fii tamit dafa am kuñ ko doon moomale waaye yaakaar naa ne bés ni ki tey ah non non non non ma ne Grand Yoff sant Mimi Touré ngi fi Ngagne Demba Touré ngi fi Grand Yoff Faye sant ndax Diomaye mooy Sonko Sonko mooy Diomaye te xam nañ ni waa Grand Yoff yëpp Sonko la jox bopp loolu mooy dëgg kon nag mbokki Grand Yoff carte électeur yi parce que xam nañ ne Grand Yoff mooy deuxième commune boo gañee parcelle gañee Grand Yoff gañee nga Ndakaaru bàcc yi dafa war a teel dafa war a leer dem leen jëli carte électeur yi jërë ngeen jëf di jëli